Rafah TV une chaîne de télévision bu ñu nee seddaay xel yu bari dem ci cuuraay ak parfum ngir xeex seddaay bi ak xet gu neex loole ma waral ci yi la jamono jaaykati parfum yi ak cuuraay ñoo ngi gis seen bopp waaw période période sedd bi nag daanaka jaayam cuuraay moom daanaka soñ borom da ciy xaw a def taw feex période cuuraay moom période sedd la quoi. ah macha allah cuuraay day dox parfois day dox ndax xam nga sedd moom bu nekkoo ko woon waxee sedd rek cuuraay a tax. ndax xam nga ne ku ne xam na ne seddaay góor ñi dañuy teel a daw place bi ñëw bokkatu. cuuraay bi da ciy baax. ci kaw nga teg ko ci doom bi mu bañ a saxar bañ laa déranger mais pompe chambre bi nag ak odorose yi moom presque moo ciy gën a neex daal. non en quoi ñoom ñaar yëpp parce que boo xoolee ni maanaam seddaay bi nii da ngay soxla cuuraay da ngay soxla parfum. dafa comprendre nga parce que maanaam sedd bi nii odeur yi dangay ngay da ngay da da ngay sentir odeur quoi xam nga. mu am ay xeet yu bëri ku ci nekk ak ba mu taamu waaye jaaykat yi yile xeet la ñu gën a jaay. na bagage dugg moom lañ gën a soxla rek muy gaaw yaa ma gën a xam ni jaay noq la tëdd. keccax bi ak koy tël. bagage importé daal ñu ngi koy jël ak gëwe saaf yi gëwe xooj yi ñu ngi koy jël bu baax. Hmm? ut bi dañ koy jël lu bari xam sama ajana bi tamit xam nga non ñoom yi ñuy gën a bëgg na mooy cuuraay yi xam ne comme yi ñuy jaay si po yi ak euh, yi ñuy takk yooyu yoon daal ne moom cuuraay yi daal ci wàllum njëg yi nag bu ñu sukkandikoo ci kàddu way jaaykat yi jamono sedd ak jamono tàngaay ñoo yam amul benn coppite. non bu dee ci cadre prix moom ñun daanaka seddaay ak tàngaay yëpp benn prix la ñuy jaayee mais bon prix lay doon ko day am en am détail am. demee en gros quoi. non ñun moom prix prix bi ñu daan jaayee duñ ko ma duñ ko mas a yokk moom sedd ak tàng lañ si yemale. tàngaay ak seddaay yëpp ñoo yem quoi même prix prix boobu la dawal di ko may gars yi xam nga suñu client yi ñëpp xam nañ ko si ñun quoi vraiment. lu am njëriñ waaye lu am loraange rawatina ñi yore asma ak jàngoro yu ni mel ba tax nañu ñu war di ko jëfandikoo ak xel. TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer